actu du jour ñu jukki leen li gën a fës ci biir euh, internet bi dañu koy dooree rek mbiru usmaan Sonko ñu gis ne nag ndiki aljuma ji rek ñu génn rek dañoo daal di jàppoo lu tolloo ci 17 femmes rek di ay femmes Pastef ñu doon amal rek doxum ñaxtu jëm ci li nga xamante ni rek mooy di non à la dictature ak immunité parlementaire u député bi di Ousmane Sonko ginnaaw rek ba ñu ko dindee ndiki aljuma ji rek ñu daal di génn jigéen ñi nag daal di génnoon rek amal doxub ñaxtu ñu ngi tolloo rek ci 17 euh, femmes bokk na ci rek seen porte bi ba nag tey jii ci ji ci la ñu daal di xamal ne defeere nañ leen ci ay 8 h mu jotee ñu gis rek ne député bi lee di Ousmane Sonko ba tey ji rek tegu leen ay gët ndax démb ci dimanche ji ba mu demee rek ca commissariat bu jëppal ngir daal di leen di gis dañu ko daal di tere rek mu daal am accès foofee ca commissariat ba ba niñ leen defeeree rek tey ci altine ji rek kii di Ousmane Sonko tegu bët benn yoon ba tey rek ci faamu Pastef yi nga xamante ne bii rek ñi ngi amal seen doxum ñaxtu noone rek la daal di amee rek ca diwaanu Sédhiou ndiki tey ci altine ji bañ daan nañ leen rek teg loxo waaye ñoom nag nee nañ bañu ñu ci uh, dara ndax li nga xamante ni bii rek teg nañ ko ci seen roddu leader bi lee di Ousmane Sonko duñ ci bañ ba dugg rek prison ndax nee na nekkul dara loo xamante ni lu jaar yoon la foofe rek ca centre de Casamance ba nekk ca diwaanu uh, Sédhiou foofu lañ tegee loxo amal uh, seen doxub uh, ñaxtu ba tey rek uh, ci arrestation yooyu nga xamante ni bii rek am na rek ci coowul Ousmane Sonko lekk aji Sarr yi bàyyiwul benn yoon rek dëkk bu sell bi rek di Touba mu di Mame Dame Lo ak Bada Ndiaye ñoom nag ñu nekk ay coordonnateur communal bu parti Ousmane Sonko bile di Pastef ñu gis rek Serigne Cheikh Thioro Mbacké moom i daal ne génn ne duñ ci bañ dara danañ def rek seen képp kàttan daane nag pare nañ lépp rek ngir ñu daal di libérer rek bi rek ah, daal nañ leen di ah, teg loxo ñu wéyandi ba tey rek ci mbiru Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr ñu gis ne nag juge d'instruction bu huitième ah, cabinet bi daad nañ rek jano ak Adji Sarr waaye nag ba mu jaalee rek niki jeudi bi rek ñu génn gis nañ ne nag kii di Ndeye Khady Ndiaye rek moom rek moo ci daal di nar a toftalu ginnaaw rek ba mu jotee rek ab convocation am nag daal di janoo rek ak juge bi niki bi ñu dëtmal rek moom lee moom moom salon bi ñu tuppee 18 booti mi nga xamante ni rek fala Adji Sarr doon liggéeyee mi daal di tuumaal lekk viol répétitif ak menace de mort jëm ci leader bi lee di Ousmane Sonko ba tey rek ci mbiru aji Sarr ci la ñuy daal di dese ni ñu gisaat ci nag yeneen révélation yu bees daal di tukkee rek ah, ci famille Adji Sarr mu di benn tantam bu daal di génne rek daal ñuy xamal ne kii di Adji Sarr xale bu luubal la te téyewul loxoom moom tantam bi rek moo ñu ko daal xamal daal ñuy xamal ne ki nga xamante ni moo di Adji Sarr daf leen woo woon euh, téléphone xamal leen ne leen mi ngi liggéey li nga xamante ni rek euh, moo di massage ba mi ngi massé benn euh, koo xamante ni bi ku siiw la mu di Ousmane Sonko tantam bi moom nee na xamul woon sax kan mooy Ousmane Sonko waaye ci noonee rek la ko xamal ne ko moom rek ab député la waaye nee na nag mu daal di gis ne ab complot rek moo daal di am ci mille mbir ndax dafa woon rek nijaayam di ko wax rek lu ni ba mu xamal ko ne ko lépp lu na ci fay rek na doon lu ko jar ba tax rek mu daal di d'accord ci mille mbir moom génne na ko liñ ci jàng rek moo di kii di nijaayam bi daal moo ko daal di influence ngir mu daal di nangu boobulee ah, mbir mu mel ne nag dafa daal di nekk ab complot bu am rek tantam bi rek moo ñu ko daal di xamal nee daal aji saa xale bu mës a luubal la te mustatee loxo moom daal moo ñu xamal ah, li ni mel mu ne moom am na ci ay preuve yu leer a li nga xamante ni bii rek dox na ci diggante boobule nekkul lenn rek ah, lu dul ab complot ñu gis na rek këru député bi lee di Seydou Diouf moom rek dafa daal di moom nag député Benno Bokk Yaakaar la Seydou Diouf moom nag dañ ko daal di attaqué ña ko def rek li ni mel di ay xale yoo xamante ni bii dañoo rek daal di muur seen kanam ba kenn xamu leen ba jamono ji rek ñuy wax ak yéen xale yi def li ni kenn xamagu ko buñ sukkandikoo rek ci Dakar mi di moo ñu xamal ne famille Seydou jouf bi xamle nañ ne amul benn yoon rek perte envie waaye nag am na ay dégâts matériels yu bëree bëri ba tax rek police nag daal nay ubbi rek ab enquête jëm ci mille mbir pour ñu xam rek ñan ñoo def boobule ñaawteef ñu àddu ci leneen bébé Saloum ñëpp rek daal di koy xam rek muy ab mbër moom la daal di rek teg loxo ba jamono ji rek ñuy wax ak yéen ma nga en garde à vue ca gendarmerie bu Kër Massar buñ sukkandikoo rek ci immédiat lam ñu xamal rek mu di ab groupe la bu doon def di yëngu ci wàllum faux billet ba tax rek ñu jàpp leen ak un million de francs CFA nekk nañ nag cinq personnes kii di bébé Saloum nag moo ko daal di juróom-benneel mu desaat nag yeneen i nit yoo xamante ni bii rek police nag ma ngay woyal ab enquête am ngir bëgg bëgg leen rek euh, teg loxo mu di l'enquête ba nag ma ngay amee foofee ca brigade bu euh, Kër Massar waaye lutteur bi la rek la ñu ko daal di jàppee mooy dañ koo piégé daal di fekk ci moom valeur 3 millions rek ci mercure boo xamante ni rek moom la ñuy utiliser ngir di amal rek euh, seeni faux billets ba jamono ji rek ñuy wax mu di bébé Saloum ak cinq personnes yi nga xamante ni rek tegagul nañ leen loxo dañ leen defeere ni ki suba rek ci talaata ji lépp lu ci fasaa rek dañ leen ko indilaat ci suñ yeneen ni jotaayu xibaar ak appel layen bi nga xamante ni bi rek dafay am euh, chaque année ñu nangoo rek ci Seydina Mbañoon Laay Thiaw nekk doom ci xalif général des Layen moo daal di ni ki démb rek ci dimanche ji ngir xamal ne appel bi rek dinañ ko amal ren waaye dañuy soppi rek anam bi nga xamante ni bi rek doon nañ ko ko amalee ndaxte jamono ji rek ñu nekk mu di euh, jamonoy mbas ñuy tere lépp luy dajaloog yu ni mel waaye teewul nee na ñoom daal dinañ am rek bile appel waaye nag dañuy daal di soppi anam bi nga xamante bi doon nañ ko amalee maanaam ñu respecté lépp loo xamante ni rek di euh, mesure barrière yi kër euh, docteur digle nañu ko daal di respecté bu baax a baax te daal di ñëw rek amal euh, bile appel lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi di daje lay doon ba ëllëg ak jàmm.